a baax euh, kon bokk bu leen fàtte abonné bés cloche bi ngir man di jot suñu ay vidéo en temps réel euh, ci chaîne de euh, production bi Tawfekh production ci YouTube bi mbeneen mbir boo soxal actualité de la semaine soxal na mbirum Boy Djiné une douzième fois muy évadé ce jeune homme ba nga xam te c'est un sénégalais bon beau temps ma jàpp ne am na luñ ci war a jàngate c'est une occasion Euh, l'évasion de Boitiné n'est qu'une opportunité, une occasion pour quand même revoir notre architecture euh, de, euh, donc de nos prisons, l'architecture de nos prisons. Cela dit, les conditions de détention sont tellement à déplorer dans les prisons da ngay xool ñu ciy bëri euh, dañuy def 15 ans dans les prisons sans pour autant que ñu lëj mbëj seen i nga gis ñoo xamante ne nii euh, dañ fay yàgg sax bu ñu leen tëj bu ñu leen attee seen peine bañ fa waroon a tëdd dépassé nañ ko sans dédommagement euh, déggoon nañ fi bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di rek le ministre de la justice bi nga xamante dafa wax wàllum déggoon nañ fi bracelet bracelet électronique yi di lam boobu pour quand même désengorger un peu les prisons parce que ni ñuy dundee c' est la euh, vraiment c' la misère totale dans les prisons jafe-jafe yu métti alors que où est la dignité humaine ay doomu aadama lañ ñi caabi féete ginnaaw am na ñoo xam ne ngaa ñiy def ko ci am na xam ne ce sont des délinquants ils n'ont pas donc vraiment une raison de vivre peut-être ci biti mais lu ci mën di am mooy ñu fexe ba li nga xam ne moom moo di la dignité humaine ñu respecte ko parce que vraiment li am ci prison yi dafa doy waar dafa doy waar te bu fekkee ne dañu bëgg jàpp ne am réew li koy doxal du ay prison yu bëri de ñu ngi noonu dañuy tabax jam ñaajo prison nangam fexe ba tabax ay lycée ay école ay université jàngukaay yu mucc ayib nga réew bala ëpp jàng mu baax ay nit ñu éduqué yu ñuy jàng mu la gën a mucc ci mbirum délinquance mbirum musiba mbirum jëye maintenant dafa wane ne am na une faille totale au niveau de notre administration pénitentiaire parce que booy Djiné nan la mën a évader génn dans ces sans pour autant que mu am yenn euh, ici malgré que nee nañ Euh, question la posé rek nee nañ euh, enquête yi ñu def les gardes pénitentiaires ils s'en lavent les mains xëy na laale wuñ ca donc l' enquête bi dana ko révélé loolu mbirum yoon la dana ko gëstu xaw ma mais en xel da tey que aussi complicité bi ñuy jàpp ne da ci am xëy na ba waral le ministre de la justice ñu démettre donc fonction yi directeur ba fa nekkoon di euh, Baye Ali Conté mi remplacé ki ko remplacé di Omar Diop nekkoon DRH bu euh, administration pénitentiaire je pense que tey jii ministre de la justice moom sax dafa waroon waroon a tekk ndombal tant que il pas sa raison ma xam ñu nekk la chaîne malheureusement en Afrique révolutionner de rendre euh, vraiment le le les les comment dire nu ñu koy waxati lenge yi delloo lenge yi li nga xamante moom moo di rek euh, bu fekkee dañoo am lajj gu ñu amal mais je pense que tey jii dañu war a xoolaat bu bëree bëri ci suñu justice bi justice bi nag bu fekkee dañu am justice inéquitable une justice à deux à poids deux mesures double vitesse je pense que day xel day tey ku am ndey ku mu amul ndey warul am ci yoon justice dafa war a nekk loo xamante day tëddee njaaxaanday parce que nit boo ko jàppee flagrant délit faux nga ne danga ko bàyyi parce que dafa am jabet dafa feebar mais ñaata nit ñoo nekk ci kaso bi feebar ñaata doomu aadama ñoo nekk ci kaso bi feebar xanaa ñooñu du nit xanaa ñooñu du ñu ay lom ana droit de l'homme xanaa ñooñu du ñu lom donc nañu xoolaat gis nga réew li ko gën a doxal mu mën a jub mën a tegu sur la bonne direction direction sur les rails du développement mooy mu am une justice équitable une justice boo xam ne day yemale ñëpp kon tey jii demu booy jinne bi naam dem na jàppaat nañ ko waaye nañu fexe ba li nga xamante moom moo di suñu administration compétence ñu gën leen a dooleel renforcer les moyens vraiment les primes ne sont pas à à leur hauteur euh, fay ga demewul noonu tey jii suñu kaaraange yi dañ war a delloo njukkal gàcce ngàllaama police gendarmerie euh, ñoom ñëpp administration pénitentiaire dañu sonn les gens travaillent de jour et nuit fatigués mais député ba am na avion am na kii nu mu di passeport diplomatique am na carburant bon carburant am na ay privilèges yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla police bi taxaw ci tali bi di lijjanti circulation moo ko ko gën a yelloo gendarme bi nekk ci frontière bi ba tey ñoom ñoo jàpp bu booy ji ne yelloo nañ ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kaso yi di garder ay délinquants yelloo nañ ko je pense que ils doivent renforcer les moyens de ces limiers qui font un excellent job moo gën xaalis bi ñuy pas pasare ci ay politique ak yeneen yu amul benn importance. abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international.